waaw tey comité départemental bu Mbacké dafa organisé woon benn activité ñu tuddee ko ramassage des déchets plastiques mu nekk activité boo xamante ni euh, dañ ko def ànd ci ak Croix-Rouge départemental bi ci turu El Hadji Baye Mbaye Sall président comité départemental ak euh, son secretaire général Mamadou Diop pour ñu ramasser lépp li nga xamante ni moom mooy déchets plastiques ci itinéraire yi ñu ñu def ko nag vraiment ngir aar suñu environnement waaye tamit aar suñu suñu suuf euh, ak suñu wér gi yaram ndax euh, déchets plastiques yi gis nañ ne actuellement ni fi mu toll nii bëri na ci dëkk bi te tamit day indi ay jafe-jafe ci suñu environnement ci suñu santé yi tamit mun na cee indi ay jafe-jafe moo taxoon tey ñu jël euh, journée bi jagleel ko journée de ramassage des déchets plastiques. waaw ah, bii nag moom mooy première édition bi nga xamante ni moom lañ ko def muy journée bi. xëy na am na yeneen activités yoo xamante ni incha allah dina ci topp ci yeneen itinéraire yeneen localité waaw tey nag euh, comité départemental bi dafa mobiliser lu toll lu war a ëpp ci cent éléments secouristes yoo xamante ni euh, ñëw nañ tey ci activité bi vraiment pour jàppale ci activité ramassage bi pour bu ko defee euh, activité bi mën a gaaw tey tamit ñu mën a am maximum d' espace boo xamante ne dinañ ko mën a ramasser pour dëkk bi xaw a set tuuti waaw waaw matériel yi wax dëgg fa yàlla sant ñaan yàlla bu baax a baax comité départemental bi jàppale nañu ci ci ay matériel waaye tamit service yi am na ci yoo xamante ni jàppale nañ ci matériel lu ci mel ni service d'hygiène lu ci mel ni waa UCG waaye tamit ak ñi nga xamante ni ay bonne volonté la nekk ci biir commune bi aussi ñoom jàpp nañ ci activité bi vraiment geste la boo xamante ni ñëpp ko war a rafetlu ah parce que déjà bi ngeen jaata rek la gars ñoom Assane di wax léegi naan lii moom vraiment lu rafet la kon borom dëkk bi war leen mën a appuyer donc te gis nañ ci aussi bu ngeen ànd ak commune bi et je crois que nekk na loo xamante ni ñëpp la war donc nekkul koo xamante waa Croix-Rouge rek la war mais li ngeen koy defee ni dana nekk loo xamante ni ñeneen ñi leen gis danañ ci def ab ba xam ne ni lépp loo xamante ni dafa war a taaral dëkk bi rek waruñoo toog di ci xaar ma sàmba wala ma dem dañ ko war a jóg defandoo ko ensemble mais Croix-Rouge moom seen taxawaay yàgg nañ ko gis ci département de Mbacké population bi li ma leen di mooy que ak di ko lancé les autorités comme ça lii nii donc bu fekkoon ne aussi le maire fexe na aussi ba ñu tali dëkk bi donc di ko lancé waale appel le président de la république ñu fexe ñoo jàppale ci tali yi suñ ko defaree rek donc dëkk bi dootul kii daal mais aussi ndekam dëkk bi moom nii la mel aussi pour rafetal ko ba mu taaru day xaw a jafe mais aussi ku nekk bay sa participation rek mais aussi bu ñu fexoon ba am ay tali autour du ci biir dëkk bi dina la xam ne lu may gën taaral dëkk bi daal mais comme lii ngeen def suñu paree kenn warul naan sànni surtout les déchets plastiques nga xam ne nii lu day rey jur gi day rey napp bi donc dana fexe ba nga xamante ni yu ci bari nga xam ne écosystème bi daal lay bloqué parce que écosystème bi benn chaîne la boo xamante ni bu lii kiiwee rek mën na naaga faagaagal leneen donc ñu ciy lancé appel que képp koo xamante ni yor nga loo xamante ni mbuus la wala leneen yu demee noonu soo ko naanee mën nga ko def sa poos sax yóbbu ko ba sa kër sax nga tuur ko parce que loolu mooy citoyenneté donc loolu mooy patriotisme loolu daal la donc bu ngeen koy def aussi bu ngeen demee après ñun danañ ci jàng donc xool aussi nan la ñuy defaatee aussi gën a sensibiliser jeune yi et tout cela pour que mu mën a gën a jàll daal. ndax mbalit day andi wopp ci dëkk tilim day andi jàngoro jum réew moom marayam comme nag am yàlla am ngeen xelum na for mbalit mi ak kaas yi yàlla yàlla fay seen bopp ndax lii fi yaar bëkk démb di ngelaw leeg poussière bi ñun ñii ngóor moom ji fay boppam am ndox di roos ci gardron bi te loolu mais état war def loolu lépp na si ndimbal loo xam ne dañ koy di waa Mbàkke dëkk bii na ñoo ko moom fi lañ dëkk fi lañ juddoo duñ fi jógee baat na tukki nañ ko rafetal te bàyyi wax ci ñaaw ji ak def ci ñaaw ji na lépp rafet ñu ay bokki neen lañ coalition naka jekk ni la ma samet ci am lam gaseti ba léegi musta dellu gannaaw ndax ma ram gaseti fi la fekk man ba muy wut meeru Mbàkke fi la fekk ba gaseti wut meeru ba day maa ngi ci dëkk bii courage boo courage dox ba léegi ba léegi déerul ginnaaw daa avancé ni mu mel na yàlla na jëm kanam ndax màggal ñoo fay nekk gàmmu ñoo fay nekk lu xew ñoo fay nekk yàlla na sama borom jëmale leen kanam yokk seen kattan yokk seen basas euh, ñoom seen plan d'action dañ ciy dugal ay activités yu bëree bëree bëree bëri activités yi nga xam ne Repose Octobre da koo dugal ci plan d'action bii da cee bokk muy ramassage des sachets plastiques euh, ku xam ne ramassage des sachets plastiques xam lii matière plastique di mën a lor doomu as aadama mën a lor suuf si mën a lor jur gi loolu rek tax na ba activité bi wax dëgg yàlla dayoom wala bokk njëriñam jéggi na dayoo. Euh, bi ñu amee ndigalal sunu président am ndigalal le préfet de Mbacké euh, jaarale ko ci la maire de la commune de Mbacké ak ñi nga xam te ne bii képp ku xeex clim ak jàngoro ci fii ci département bi ñoom ngay jàppale muy service d'hygiène bu Mbacké euh, bi ñu amee seen ndigal ñu ñëpp ak suñu ndigalal président lan ko jaarale ci ñi nga xam ne ñoo ko initié muy équipe départementale réponse catastrophe ñu initié activité bu mel nii comme si ni nga ko waxee nag activité boo xam ne dafa bokk ci activité phare yi activité boo xam ne day dem ci hygiène assainissement bi nga dëkkandoo ak sa dëkk ni ngay setale ndox ni ngay setale ñam ni nga seetale sa yére ni nga setale sa yaram noonu nga war a setale sa environnement mooy sa dëkkuwaay fi ngay yeewoo fi ngay jaar suy xëy fooy wàcc fi ngay foyee fi ngay liggéey ak yéen moo tax activité bi tey croix rouge départemental bu Mbacké ànd ko équipe réponse au trop ak anciens yi nga gis sama ginnaaw ñëpp ak euh, comité départemental bi ñu ñëw ngir jëmmal ko ak askan wi ngir askan jàppale askan wi ci seet ak seetal. activité dafa am ñaari euh, niveau benn niveau bi mooy ramasser sachet plastique yi. deuxième niveau bi mooy lancer un message soo dégloo ci Mbaye Kassé message bi jaarale ci mbedd yi mooy mi ngi wax askan wi na leen euh, sachet plastique yi ngeen di gis ñu ngi koy jëfandikoo euh, bàyyi ko ci euh, sunu askan bàyyi ko ci environnement bi baaxul non seulement day taqal day ñaawal deuxièmement day rëy jur troisièmement du gaaw a seey ay ati at mën na ko def ci suuf quatrièmement aussi itam mën na indi yeneen jéye su takkee ci xet gi ci toxique wala boog su tàkkee ba mën a tàkkal leneen kon daal ci gis nañ ne gis sa sachet plastique ci suuf baaxul ci wér-gu-yaram baaxul ci rafetaay baaxul ci gisan gis-gis baaxul ci jur gi baaxul ci doomu aadama kon nag loolu rek doy ne pollution la sax nag te matière toxique la looloo tax euh, activité bi ñu gis ne activité bu baax la ci wér-gu-yaram bu baax la ci rafetal sa dëkkuwaay waaye bu baax la ci aar askan wi ak aar jur gi nga xam ne itam ñoo nekk moom ci suuf si looloo tax Croix-Rouge département Mbacké ànd ak ay volontaire am ci niveau départemental ak yi mu soxal jaarale ko ci commission bi nga xam ne ñu war a réponse ngir def activité bi